asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yow mbokkum taalibi murit bi di góor wala jigéen jàppal ne sëriñ bi jox na la wér duma xuus yu mu jële ci boroomam te jaarale ko ci sallallahu alayhi wa sallam li des kay nga seet ci yoon wi ku am ndigalul joxe ko nga dem ca mu joxal la ko boppam waaye ndigal li moom sëriñ bi digal na ko murit yëpp góor ak jigéen li ma ta leeral nag mooy ñu bari dañuy defe ne mag rek moo war di wëdd maxos muy jigéen ji muy góor gi gone gu jigéen bu xàmmee farataam rek mat jigéen rek war naa mën a jël wëdd ma ak xuus am na sax ñoo xam ne dañ naan boo amee ngant sax mën naa wéelu wérdi bi am ñu ne bu boobaa da koy dog ba ngant di jeex waaye lu ci mën a xew rek ak ngone wërtatee nit ki di wërdi maaxus ndax gis nañu jigéen ñi ñu farlu lañ ci yoon bi ñu bëgg sëriñ bi lañ ñu ngi durus xasida yi bu baax a baax waaye nag dañ cee war a boole xam ne noonu mu leen joxee ndigal ci xaside yi ni la leen joxe ndigal ci maaxuus ñor ko kon ngone gi bu mu leen yàqal jël wér di nañ ko jël te di ko sellal te di ko fonk loo xam ne du la dikki mukk ñaar fukki minute du la yàqal dara foo sëlmale jullik suba ba jant di fenk mën nga ko faa def bu la rawee mën nga koo fay ba ineer ba sëlmalee takkusaan moo ci gën ba jant di so mooy waxtu wa ca gën bu la rawee mën nga koo fay ba njël daanaka kooku yomb a juboon te doy na sëkk rek ay ngëneelam boo ko yoree ki ñëpp ragal loram te suñ borom kàttanal ko ba man lu bari ci jaam yi muy iblis ak i njabootam duñ man ci aw dara kon nag war na ñëpp farluwaat gone gu góor gi bu xasee am fukki at juróom-ñett mat góor la ko jël moo xam day liggéey moo xam liggéeyut ndax yàqu dara diggante bu gàtt la waaye seytaane moom yi nag bi mu xamee ne ku yor wurdi bi du la mënal dara moo tax day def ci xeli nit ñi ñu naan naa ba doon mag te yow xamoo da nga doon magam déet kon nag nekk ca waabud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin jaamu yàlla ba dee fekk la ca. kenn xamul tey ngay dee wala suba ngay dee wala ngay dee wala guddi ngay de kon nag loo bëggul dee fekk la ca de ko moytu loo bëgg dee fekk la ca sax ca dàkk te bu ci jóg kon maa ngi lay biir sama bokk yëpp rawatina jigéen ñi nga xam ne bari na ci lool ñu defe ne gone gu jigéen war te yor maaxoos nañ ci gën a lu bu baax te di ko sellal te yàlla nañ ci dese ngërëmul Sëriñ Tuubaa